mbëggeel bi ngir xale yi kii di ko xamle màggal bu njëkk bu bés mucc ki ko bind Edward Hughes ku def illustration bi Jenny ki ko tekk Christian Lingua ki def adaptation bi Lynn ki kay nettali Fodé Moussa Ndiaye nettali juróom fukk ak ci juróom benn fukk jokkoo www www.m14.org Bible for Children po P.O. Box ñett Winnipeg MBR ñett C ñaar G Canada licence am nga sañ-sañu copier wala it imprimer bi mu nekkee ni doo ko jaay soxna si taxaw ci booru tund gi ay gëtam yu tiis ne jàkk xew-xew bu metti doomam bu góor mu ngi doon dee yaay ji nekkoon maryaama mu taxaw ci wetu bërëb bu nga xam ne fa lañu daajoon yeesu ci benn bant naka la li yépp xewee naka la yeesu jeexale ab dund gu rafetee nii ci fan bu ñaaw naka la yàlla mu ne bàyyi ñu taaj doomam ay pont ci bant bii mu def ndax yeesu dafa juumoon ci ku mu nekkoon ndax yàlla dafa ñàkk déedéet yàlla ñàkkoon yeesu defu woon benn njuumte yéesu dafa mësoon a xam ne ay nit yu bon dinañ ko rey ba yeesu nekkoon liir sax amoon na ab màgget bu tudd simeyon bu waxoon mariyaama ni tiis mu ngi tegu ci kanam ay fan balaa ñuy rey yeesu benn jigéen ñëw tuur latkalañ wu xeeñ neex ci ay tànkam taalibe yi mer di naan mu ngi yàq xaalis yeesu tontu leen ne dafa def jëf ju baax te def na ko ngir bu ñu may suul lii cay kàddu yu yéeme ba lii amee yuda benn ci fukk ak ñaari taalibe yeesu yi nangu wër yeesu ci kanam sarxalkat yu mag ya ci njëgu fanweer esteteer te bés bu yawut di màggale bés mucc ga yeesu am reer bu mujj bi ak ay taalibeem mu wax leen ay mbir yu yéeme ci yàlla ak ay diggeem ngir ñu ko bëgg noonu yéesu jox leen mburu ak benn kaas ngir ñu seddoo ko lii doon na ngir fàttali leen yaramu yéesu ak deretam joxe nañu ko ngir baale bàkkaar yi yeesu doole ci wax ay xaritam ni dinañ ko war te dinañu daw bàyyi ko wante piyeer na ko man duma la bàyyi yeesu tontu ko ne balaa ginaara sax dinga ma weddi ñetti yoon waxtu bu sori ci guddi googu yeesu dem ca toolub setsemaane ngir ñaan taalibe yu nekkoon ak moom jaaree fa nelaw yeesu di ñaan naan sama baay bu fekkee ne kaasu naqar bi mënuma teggi te naan ma ko kon na sa coobare am ci saase ab mbooloo bu bari bu yuda jiite agsi ci tool gi yeesu jénguwul wante piyeer dagg nopp kenn ci mbooloo ci saa si yeesu laal nopp waa ji faj ko yeesu xamoon na ni ñu ko jàppee bokkoon na ci bëgg-bëgg yàlla mbooloo mi yóbbu yeesu ci kërub sarxalkat bu mag bi foofu njiitu yawut yi ne yeesu dafa wara a dee pierre mu ngi taxawoon ci ëttu xaalu suuxe yi di seetaan ñetti yoon nit yi xool pierre ne ko yow nekkoo woon ak yeesu ñetti yoon mu went ko ni ko yeesu waxee woon piyeer dem na sax bay giñ ak a waay kokoriko ci ginaar gi sat mu mel ni baatu yàlla ngir piyeer di ko fàttali kàddu yeesu yi noonu piyeer jooy ndax naqar yuda itam rëcc woon na lu mu defoon ndaxte xamoon na ni yeesu defuloon lenn ci lu ñu ko doon jiiñ mu di bàkkaar wala tooñ yuda jëlaat fanweer statèr yi delloo leen wante sarxalkat yi bañ ko jël yuda sànni xaalis bi ci suuf génn takk buum ci bant bantam xaru sarxalkat yi indi yeesu ci kanamu pilaat boroom réew muy teewal rom pilaat ne gisuma benn tooñ bu nit kiy def wante mbooloo mi woy di yuuxu daj ko ci bant daj ko ci bant pilaat mujjee xàddi ne ñu daaj yeesu ci bant bi xarekat yi dóor yeesu tëfli ci kanam dóor ko it ay jar ñu ràbb kaalag dég teg ko ci boppam teg si ñu daaj ko ci bant bi ngir mu dee yeesu xamoon na ni la waroon deewee xamoon na itam ni deewam dina indi ñu baal bàkkaarkat yi ko wolu seeni bàkkaar boobo ñu dajale ak moom ñaari taskati réew ma kenn ki gëm ci yéesu te dem àjjana keneen ki déet ba ay waxtu mu metti jàlle yeesu yuuxu ne jeex na mu dee ay jëfa mat ay xarit suul ko ci bàmmeel bu bees bu kenn defaraloon boppam ay xarekatu boroom tëj bàmmeel bi te di ko wut léegi kenn mënu ca woon dugg ci biir wala génn sax bu dee ni lii moo waroon a nekk mujj nettali bi kon dina tiis wante yàlla def lu yéeme yeesu yéemul ci dee fajar teel ci bés bu njëkk ci ayu bés yenn ci taalibe yeesu yi gis ni doj bi tëjoon bàmmeel bi dafa dañoon ba ñu xoolee ci biir yeesu nekkatu fa woon benn jigéen des ci wetu bàmmeel bi di jooy yeesu feeñu ko mu daw gaaw ak mbégte waxe ko yeneen taalibe yi yeesu mu ngi dund yeesu dekki na ca dee ña ci lu gaaw yeesu ñëw ci taalibe yi mu won leen fu ñu daajoon pont yi ci ay loxoom dëgg la woon yeesu mu ngi doon dundaat mu baal Pierre ndax lu mu ko waree noonu mu sant ay taalibeem ñu xamle ko fépp noonu mu delluwaat ci kaw asamaan fu mu jóge woon màggal bu njëkk bu bés mucc ga nettali bu jóge ci kàddu yàlla ji injiil bi gis nañu ko ci Marse ñaar fukk ak benn ñaar fukk ak ñett Luuk ñaar fukk ñaar ñaar fukk ak ñeent Yowaama ñett ñaar fukk ak benn sa pirim kàddu day leeral saboor téeméer yàlla xam na ni def nañu ay mbir yu bon yu muy woowe bàkkaar mbugalu bàkkaar mooy dee yàlla def nañu bëgg lool ba waral mu yónnee benn doomam képp gu mu am yeesu mu dee ci bant bi ngir fay suñuy bàkkaar yeesu dekki ba delluwaat ci kaw asamaan léegi yàlla mën nañu baal suñuy bàkkaar boo bëggee dëdd say bàkkaar waxal lii yàlla yow yàlla gëm naa ni yéesu dee ngir man te mu ngi dundaat léegi maa ngi la koy ñaan ñëwal ci sama dund te baal ma samay bàkkaar ba ma mën a am dund gu bees léegi te ma mën a nekk ak yow ba faw dimbali ma ngir ma mën a dund ngir yow mi sa doom amin yowaama ñett fukk juróom benn jàngal injil bi te waxalaat yàlla bés bu